suñu jotaay bi tay euh, bi nga xamné suñu jëwriñ bi euh, ministre Omar Sarr moko jité dañ dañu pour yéssal lu ñuy wax suñu charte bi lettre de politique sectorielle euh dañ ko tabone depuis 2017 mais japp nañ 2017 ak tay lu bari xewna ci dëkk bi comme xewna ci aduna bi liñ ci gëna japp moy euh, pandémie Covid lool bamu amé nak nag le président de la République mom ci bopam moo ne ni se doon doxé avant Covid bi dañ koy wat parce que Covid bi ñëw gën normal suñu économie suñu ki suñu koom bi donc ba nga tax na ne légui euh, buñ ci génneeg jàmm war nañu am ay matuwaay yu ñuy jël yo xamné dinañu taxné euh secteur bu nek dina jéem def kemtulay katanam ba suñu koom bi don koom-koom boo bu événement yu mel nii ñëwee dootu fa nu mu yombé

donc si ci gën bu ci top tamit manam lepp nous suñu la jëm ci géologie war nañu def kéemtalaay que pour jéem xam lepp lo mom mo nek suñu sous-sol bi lool day doon euh, lo Sénégal dina gagner lu exploitation minière yi ñuy def euh, bi ci top tamit manam ci mbirum doxalin bi bobu tamit dinañ ko gëna a gëna yéssal a euh, ñi secteur des mines et tamit gëna a jigéen yi nga xamné ñu ngi yëngatu ci li nga xamné mu ngi jëm ci des donc yoy yëpp doon na ay objectifs yo xamné buñ ko jappé taxawal ko et buñu yalla mayé mën nañ ci def ay jéego yu am solo comme suñu yi ku nekk dina gis exploitation minière